par Sapburi Njaay mu bind ko premier ministre au temps Boun Abdallah Dionne ma ne ko loo xanaa dangaa gis sama oto mu ne ma déedéet fii dañu fi woo conférence de de presse boobu ngay mën fay mii moo ko organisé bi ñëwee ma fekk maa ngi taxaw di naan boisson mun yoon teg man ndax xamante ni mu ne ma sa place bi fan la ma ne ko place bi mooy fii ma taxaw mu ne ma déedéet paa bi sañul loolu ma ne ko man paa mu ne ma Goudiaby ma ne ko lu xew mu ne ma nee na yaa ngi ci littoral bi ma ne ko littoral mu ne ma ne ko ah, fii ngi fi nekk ma ci littoral de mu ne ma dama ruus li may wax ni tele la te sama jëmm ji jomb naa fen mu ne ma duma assister conférence de presse bi mukk gàcce bi ma ko suivre mais mun a jël otom taal ko dem ba tey suivre conférence de presse bi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 tam papa woolu ma ma dem fekk ko fa yooyu yëpp ay photo la te loolu yëpp dinaa ko génn ci internet bi tam nekk ci digg bi man ak moom ñu seq sam mu ne ma dama bëgg ci sa kanamu papa li may wax yëpp sa papa dégg ko mu ne ko Eliman kii dama koo bëgg te yàlla moom moo tax li tax dafa doxewul lenn luy sant nduur dafa gëm boppam